bi nu ko waxee ni ko dangay ngay jihaat yori ngànnaay mu ni leen déedéet man yorumay missile yorumay char de combat ñu ni ko loo jahaare kon mu ni indi ujahidu bil ulumi wa bi tuqa abdan xadiman wal muhayminu saahidu ma dégg la léegi bi ngay wax ak sëñ Muntaxa ni ko dama bëgg nga ñaanal ma bu ma fi jógee liggéey bi continuer loolu xadis bu wér la man ahabba an laa yanqatia amaluhu baada mawtihi fan fal yansuril ilma ku bëgg waxtu woo fi jógee sab liggéey di continuer na nga sax ci tasaare xam-xam nga dajale fi nag tey nga dajale fi tey mbooloo mu am solo ndax Cheikh Moustapha mii toog di Cheikh Mouhamadou Lamine toog fi teewaayu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara alxuraan rek la bëgg ndax sëriñ tuba bi xidmatil quraani wal xadiisi yasbutu laa bi dahabil mawrusi sëriñ tuba léppam alxuraan la sëriñ Moustapha ngi nii toog sëriñ Abibu mi ngi nii toog mu sëriñ Fàllu ki ñëw muy Cheikh Mamadul Basir di sa maam di sa kilifa di sa soppe di ko yàlla baaxal dama koy wax ni ko waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu Cheikh Mouhamadul Basir baydi woowu la fab teg ko ci kanamam mooy sëriñ Touba dafa wax ni yàlla yàlla na nga faj aajo ñi nga xam ni dañoo sax ci di ma liggéeyal wahab lahum maaraamu te nga may la nañuy sàkk toogaayam bii toogaayu taalibam Serigne Touba la toogaayu ku bëgg Serigne Touba ku gëm sëriñ Touba te Serigne tubaa moo ni woon. wajhu alladi yuhibbu nii yabyaddu yow mu wujuhu saadaaw tabyad bépp xar kanam bu ma sopp bu yowmal xiyaamee day leer ba mel ni xar kanam mu ñu àndoo yonte bi sallallahu alayhi wa sallam xare ci lislaam ban rey leen moom lépp sëriñ Tuubaa la kon bu waree jër kàddu teew fi jaadu na ñu sargal ko sant ko gërëm ko ndax nii la àndee woon ak magam yu baax ya baayam yu baax ya dama koy wax ni ko Ibnul Qayyim dafa wax ni bépp koo xam ne ay atam bariwul mu ñeme mag ñime jaxasook ñoom ñime di nekk ak ñoom ñime di dem ci seen jataay xamal ni kooku dana bokk ci nga xamante ni si ni yaakaar ëllëg la doon te ku ne xam na ne bi muy jaxasoog Serigne Saliou di jaxasoog Cheikh Mamadou Mourtala booba ay atam tollul fii waaye nag booba Serigne Touba mi ngi koy préparé ndax bu say ruyu ci Hamziya dafa wax yonente bi ni ko lam tazal fii dama iril kaw ni tuxtaaru lakkal aba lu jamono mas a jaxasoo lu mas a lëj-lëj yàlla daawul dañ di la préparé nday yu baax ak baay yu baax préparé nday yu baax ak baay yu baax yooyu day dem ba ci dañuy préparé sa jikko préparé sa pas-pas préparé préparé sa taxawaay ba bu ëllëgee bépp responsabilité buñ la mën a jox da nga ko mën a doxal wax naa la keroog ci Ndakaaru ne li ñu la jox nga téye ko luy bëgg man mën ñaar fukki at bari na ñoo xamante ni ci yoon yi buñ leen ko joxoon wadd na bu yàgg ñu rot ndax mbir buñ la ko joxee te yaatu woo dënd mënoo muñ doo jéggale wal kaasimiina al xaysa nekkul ci yow wal aafiina ani naasi nekkul ci yow loo yor doo yorot nit ñu nit ñu war ko kon sëñ Moussa Alaaji Baara ñu ngi lay sant di la gërëm di la tax di la ñaanal yàlla yow yàlla sàmm la taxawu la aar la di sant sama kilifa muy Serigne Saliou ndax man mooy sama buntu Serigne Touba. dëgg la alxuraan dane wa atul buyuta min abwaabiha peex wax na ko wax na dëgg. man bi fi Serigne Saliou Xaadim Awa ba di jógee. dëgg la. booba maa ngi toll ci ñaar fukki at ak ñett muy 1991. dëgg la moom mii moo ma jëlaat. mokkal na alxuraan bind kaamil am certificat arabe am certificat brevet ak brevet arabe mu jëlaan ba war ma kokki ma def fa 6 mois fa la amee bac ci 6 mois yooyu ci laa jàng def bac at mi te loolu lépp moom kon moom maa ngi koy sant di ko gërëm moom Serigne Saliou di ko seedeel mbokk yi fi teew yëpp di sant waa kër sëñ Ibrahima Mbacke yi nga xam ne ñoom lañ tuddee bis bi ñu yëkkati fi kàddu yu rafet waaye di sant Serigne Modou Lo Ngam mi toog. Mhm. yàlla baaxal dëgg la. di nit ku bëgg lu baax di ku bëgg mboq di ku mën a sonn di koo xamee ni lépp lu ñu ni woote ci Serigne Touba bu ñu desoo gis ko Serigne Mouhamadane Abdoulaye tamit joge jóge ba Louga ñëw ak Serigne seex baara Abdoul Karim di sant Serigne Cheikh Aziz waaye Mambaara Mambaara Mambaara damaa bëgg nga dalal sa xel lii nga defal sëriñ tubaa dëgg defal ko sëriñ Bara ñun njabootu Serigne Bara gépp nga ko defal sa sëriñ tubaa bi muy sanc dëkk bii waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wal tusbitan fiihi jamaatan tuqim asalawaati alxamsa da'ban yaa hakim dëkk bii sëñ Tubaa xam-xam la ko sañte dëgg la sëriñ Tubaa léppam xam-xam la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne man araada dunya fal yaqra alquran wa man araada al axira fal yaqra alquran wa man araadahuma maan fal yaqra alquran ku bëgg àdduna na nga jàng alquran ku bëgg alaxira na nga jàng alquran ku leen bëgg ñoom ñaar na nga jàng alquran kon na yow ñu ngi lay sant di la gërëm Serigne Moussa Abdoulaye sa baay lii rek la bëggoon man ci ak mu jëm ku jaxasoo woon ak moom laa waaye yàlla dogaloon na kaamilu alxuraan kaamilu alxuraan booy may ma tuuti waaye booy may ma tuuti kaamilu alxuraan ci ñaari fan la ko daan wàcce mm-hmm. fukki isib juróom suba fukki isib ak juróom ngoon fukki isib ak juróom bu xëyaati suba mu doon ñaari fan mu mokkal ko te Serigne Touba nee na man araadal qurba min mawlaahu fal yaqra il quraan la wird yi ñuy def ak di ko ay xalwat am na lu ko gën a gaaw mooy saxaw alxuraan sa maam Serigne Touba nee na man araadal xurba min mawlaaw fal yaqra'ul xuraan la saw ku bëgg a jige yàlla del jàng alxuraan ku bëgg ko wax boo waxee yàlla dégg la boo ñaanee yàlla nangu boo laajee suñu borom mu jox la dangay ngay saxaw alxuraan yow nag nga nekk gone gindiku xalaatoo dara ci àdduna lu dul sanc daara xalaatoo dara ci àdduna lu dul taxawal ay daara xalaatoo ci àdduna dara lu fexe njabootu Serigne Touba gi mokkal alxuraan sa daara bari na ñoo xam ne ñuy ay doomi Serigne Mourtala ay benn benn ñoo xam say maam lañ ci sa daara lañ jàng arxuraan ba mokkal am na ñoo xam ne say rakk lañ ci sa daara lañ jàng arxuraan ba mokkal ko te loolu yaa ngi dimbali Serigne Touba ci liggéey boobu jamono bi ñu nekk arxuraan kitaabun bihi narju minallahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al-karbi ñoo ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla sàmm la taxaw la voilà nee na ñaari baayam yooyu muy sëñ Sidi Abdou ak sëñ Cheikh Aziz da leen di décorer dëgg la ndax ñooñu bi sa baay jógee 1990 1990 bi 1990 bi fi sa baay jógee 1990 bi fi sa baay jógee Serigne Cheikh Aziz moomu Serigne Sidi Abdou Aziz ñoo takk seen digg laxasaayu topp Serigne Moustapha defatuñ ko woon Baye defatuñ ko woon Serigne waaye bàyyi lañ ko defoon di ko xoolee jëmmi Serigne Abdou Aziz Bara kon bu ñu demee tey vingt ans wala vingt deux ans nga ni da nga leen di décorer ngir taxawaay bu ñu am ci yow ak assistance bu nu am ci yow ak jàppale bu la jàppale ba nga nekkee ba léegi te lii lu wér la lu dëgg la lu wér la lu dëgg la ndax bu wérul woon du am ñaar fukki at bu wéru woon du àgg fii mu àgg kon boo leen décorer nii da nga leen décorer muy sëñ Cheikh Aziz ak sëñ si bi dañ lay sant di la gërëm di la ñaana yàlla yàlla sàmmal yàlla jàppale lii nga def nag njabootu sëñ Bara gépp nga defal te ñëpp nag fas yéene noo futtiku takk suñuy ndigg ànd ànd ci ak yow ba mu jeex tàkk ndax ñun lu dul alxuraan ñoruñu lu dul xam-xam ñoruñu ndax al ilmu yanfau al ilmu yarfau baytan laa imada lahu wal jahlu yuxfidu baytan ak si wa sarafi xam-xam muy yëkkati aw askan te Cheikh ma Lamine Bara samaam moo rawoon ñëpp ci xam-xam ndax moo wax ni hadayta nii yaa hadiyan allamta nii saxayta nii kesa safa rabbayta nii allamta nii yaa rabbi min ladunka ilman yaqinin aza wa sakka yàlla mbokk ko joxoon boo ko bëggee xam dangay dem ca majmul baxaray ni ci liqaawu bay na sayduna moussa wa sayduna xadra yonente yàlla moussa min bokk ci ulul asmi wa isa xas naa min annabiyina misaaqa wa min kaw min nooyin wa ibrahima wa moussa wa isa yàlla ne ko demal foofa boo demee danga fekk sama jàmm boo xam ne dana la xaman añ mu la junni te sa maam Cheikh Mamadou Lamine Bara yàlla jox na ko kon yow ci kawteef ci kawteef ak liggéeyaa kon Cheikh Mamadou Lamine Bara nga bokk ñun ñii di say baay ñun ñii di say kilifa sant nañ la gërëm nañ la danañ la accompagner danañ la jàppale ba liggéey bi ndax ñun xam-xam lañ bëgg xam-xam moo ñor di sant sëriñ Mbuub di ko gërëm di ñu delluwaat di ñaanalaat di sàkku mbooloo mi ñu ñaanal Cheikh Mamadou Bassir moom mu Cheikh Abdoul Khadir yàlla jàppale ko yàlla taxaw ko ndax yonente bi moo ne afdalul ibadati banda xiraatul quran ad duaa gannaaw jaamu yàlla yi jàng alquran moo ci gën a kawe bu jàllee ñaan moo ci tege kon ñu ngi lay ñaanal yàlla guddal sa fan liggéey bi sëñ Mountakha fab teg ko ci ñëpp yéene nañ ko ànd ak yow ñëpp yéene nañ la ko te ñëpp it bu nu danañ takk seen liggéey ànd ak yow jàppale la ba mission bi yàlla àggale ko fonk bëgg àggale di sant taalibe yëpp di sant jobootu Serigne Baara góor ak jigéen ñëpp ñëw nañ ànd ak yow bis bi say soxnaa ngi nii toog nii la jigéen ju baax jigéen ju baax day taxaw borom këram jigéen ju baax day taxaw borom këram adduniya kullaha mataa wa xayra mataa dunia asawja asaliha adduna lépp marchandise la marchandise mi ci ëpp marchandise mi ci gën mooy marchandise mooy jigéen ju baax te yàlla boole na ak moom di sant sa waajur wu jigéen di jàmbaar di koo xam ni daal laxasaayi woon takkaayi woon bàyyi woon léppam ànd ak sëñ Moussa Abdou Aziz lam doon bëggoon di ko ñaan yàlla nag mooy yàlla may ko doom ju mel ni yow kon yàlla na yàlla barkeel liggéeyam yàlla na la yàlla sàmm yàlla na yàlla taxaw wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu sëñ Dame Soda ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla sa rafet na li nga liggéey ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp rafet nañ ngi sant ñëpp di gërëm léegi léegi nag iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq iqra wa rabbuka al akramu alladi allama bil qalam